joyal ko ci kilifa ak ñépp mu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñëw fii ci Daaru Muxti joyal ko ci Cheikh Mouhamadul Bachir xalifatu Cheikh Ibrahim waaye bi bismi Cheikh yi Sëriñ Moustapha Hafsa ak mbooleem njabootu daaru borom Daaru Muxti gépp dëgg la site yi bari na naam mais eh, bokk na ci site yi nga xam ne dafa war a gën a ràññeeku bu tegee fi mu war a tege xew-xew yii fi jàll nag di wu ñëpp senegal yépp ñi nga xamante ni bii ñoom la seenu njaboot jiitu malakal mawti jël ci seeni roox suñu boroom ku muy jëlu ak rooxam rek ak fa ma koy jaarale xam ne ñi jot a dem foofu la seen ruux waroon a jaare di sëriñ Muntaxa ak sëriñ Basiru ak sëriñ Moustapha Hafsa sëriñ Maam Cerno bu sëriñ Cheikh Awa Balla suñu mbokk mu baax mi dëdd te sëriñ Muhammadul Muxtaar ibnu Yaa Xafaar eh, wax naa léegi ni ñu ngi massawu ñëpp Sénégal yëpp bu dee sur le plan spirituel Serigne Mountakha ca ba sur le plan temporel président Macky ca Babba ñëpp la ñuy masku ñëpp la ñuy massawu ndax mas massawu boo koy def du càggee na danga koy limité da ngay xool da ngay koy yóbbu ca kilifa yi kii moo jiite spirituel kii jiite temporel ki jàtte kii jiite temporel nag ma am. yu ma ko bëgg a junj ci man mii di wax a yéen fu ma jaar ci rafetal ci sama diggante ak ñoom la ko tàmbalee ci président Diouf président wadd ba ci moom mii yi nuru yi ñu taamuwul moo xam ci xew sama njaboot wala njabootu keneen ku mu mën a doon yooyu yëpp dafa am lu nu Serigne ba jàngal ku ne xam na ni al jazaul ihsan illal ihsan ku na xam ne ni itam inal xasanaati yuzhibna sayiati waaye ñun ñuy sant nag ku tedd ki ci bi mu defee ci ñun maanaam lu dul rafetal rafetal mënu ko gënal moo tax waa temporel yi ak ñi ko séqal bu ñu am arrière pensée ci man ci sama njaboot guñ jàpp guñ jàpp njëkkul tey te la ma doon wane démb ak bërki démb ci élégance moom lay wone tey ëllëg itam moom lay wane ba ba seen xel dal ci man ku tedd ki dama jàng mu wax boromam ni ko axrij idaka sarmadan min rahmatik waleen taqam minhum bi abqa niqmatik ci bisu gaawu la ko bind booba daf ko daf ko wax naziral sa noon yii na nga leen génne ci sa yërmande waaw man duma fayu waaye na ma fayul loolu la ko wax foofu te ci bisu gaawu la ko bind ba demee ci ikfin yi itam mu wax ko ni ko anta lazi min idal islami muntaqimun walin taqamta yow yaay ki nga xam ne aj fayu ji nga xamante ne bii maanaam noonu lislaam yi yaa leen di fayu man fayul nga ma loolu wax yàlla man su ma neexoon ku ma tooñ ma ni ku tedd ki nag ma fayul waaye li ma ku tedd ki defal wut ak fayonte waaw moo tax du ma na ñëpp dal dalal seen xel ci man waaw te xam ne man maa fi waxoon bërki démboo njaay ni képp ku bëgg wa teg ci baatu kilif ci baatu ki sa baat képp ku bëgg a teg ci deru kilifa lu dul noona ñëwal teg ma ko mm-hmm. la sëriñ Moussa ko waxoon ci ku tedd ki ni ku tedd ki dafa waxoon ni may na ma dalub islam mm-hmm. ma nit may na ma dalub muridiya mm-hmm. looy buum na ma xëpp waaw sa sang yi ñu suturaal ngir jëmi ku tedd ki